ci loolu it bi loolu amee nag Quraysh yi tàmbale dajawaat Quraysh ñoom lu xew rek dañu daal di tàmbali seet pexe yu yuñ ci yuñ ci tëral ci loolu lañ tàmbali ne léegi kat nan waxtaan ak Seydina Muhammad fekk booba kenn ci waa Quraysh ñu di ko Utba ibnu Rabia moo leen wax ni baarakallahu fiik ah baarakallah baarakallah mi ngoog mooy bay dee bihi taazza diinullahi murtafian mi ngoog baarakallahu fiik ci loolu nag bi loolu bi bi ñaari xew-xew yooyu amee ci la waa Quraysh jëlaat meneen pexe mooy benn bis dañu yebal ki ñuy wax Utba ibnu Rabia Utba sax wax nañ ne moo njëkk a génne xibaar boobu moo ne leen yéen waa Quraysh fekk ci ci penc mi fi ñu daje ñoom ñëpp moo ne leen yéen daal daa am lu ma leen xibaar bu ma leen bëgg a wax bu ngeen ci àndee nu nu doxal ko mooy man damaa bëgg a ngeen yebal ma ca Muhammad ma waxtaan ak moom ma am ay mbir yu ma ko tegal yoo xam ni yaakaar naa faw mu nangu ci benn mënu ko mënu ko gàntondoo lu mu ci nangu nag yéen waa Quraysh yëpp ngeen ànd ci bu ko defee jàmm na ñooy ci dëkk bi ñu ko dal koy boo ko mënee baax na mu daal di ñëw ci yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko waa Quraysh ñoo ma yónni nee na bi mu ñëwee ci yonent bi alayhi salaatu salaam da da ko wax ne ko yow de Muhammad sunu mbokk la te itam ci sunu askan nga bokk te itam xam nga ne waa dëkk lépp jox nañ la cër am na cër buñ la jox boo xam ne ñëpp seere nañ ko waaye nag lii nga indi ci dëkk bi day war ngaa war ngaa seetlu nag fi mujj mooy tasaare nga nit ñëpp kër gune fi ne ñii tàqalikoo nañ seen i bàyyi ñii tàqalikoo seen i mbokk ñii tàqalikoo seen i ndek te itam yëmoo ci loolu moo dem li suñ bàyyi yeeg maam yi nekkoon lépp sikkal nga ko wax ne amuñu woon xel ak liñ nekkoon dara baaxul te itam léegi yow maanaam ñun ñëpp wax nga ne daal ñoom dañuy ay dof ak nangam nangam lépp xas xeetu xas ko ne xas nga nu ko léegi dama bëgg nga seeraat sa sa bopp nag te xool ci yi ma lay wax nii te tànn ci benn yonte bi ne ko li nga maanaam waxal yi yooyu ngay wax ne mu ne ko su fekkee ni alal nga bëgg ci lii ngay woote lu waa dëkk bépp nu dajale la alal joo xam ne yaa fi ëpp alal ci dëkk bi su fekkee nag itam da ngaa bëgg daraja maanaam jiitu ñëpp topp sa ginnaaw waa dëkk bi ñu ñu def la buur far buurub dëkk bi nga nga nga nga nga jiite ñëpp te waa lu dëggulee doon nga xam ne lépp lu ñëw loo ca dogal rek loo ca dogal rek mooy liy wëy su fekkee itam nag yooyu yëpp bëggoo ko xanaa ne yow maanaam fekk dèjà teg sax ne bu fekkee mbirum adduna la moo moo moo la tax jóg mooy waaw looy sàkk ci li nga wut mooy bànneexi bakkan yu deme noonu mbirum soxna yooyu ñu seet loo ci bëgg rek ñu wut ñu indi la te nga bàyyi yi nga li li ngay woote ni su fekkee nag loolu lépp amul te xam ne yow maanaam sa xel ci boobu moo neexut nga xam ne jinne jinne la sadd itam ñu wutal la docteur bu la faj yii daal la bëgg nga seet ci ñeent yooyu benn boo ci tànn rek moom nga tànn yéen bi ne ko noppi nga mu ne ko noppi na mu daal di tàmbali moom yonente bi di tari an suratu fussilat bismillahi irrahmani irrahim kitabun fussilat ayatuhu qur'anan arabiyan li qawmi yaclamuuna basiran wa nadira fa acrada aktharuhum fa hum la yasmacuuna wa qaalu qulubuna fi akinati mima tadcuuna ilayhi wa fi aadanina waqr wa min baynina wa baynika xijabun facmal innana caamiluuna masalan di tari moom yonente bi alayhi salatu wasalaam mujj Utba moom it di diglu yonente bi diglu koo xam ni amatul amatul ak saba ci ci li muy dégg ba ni yonente bi alayhi salatu salaam wax ne fa in aradu fa qul anzartukum saaiqatan misla saaiqati aadin wa samud maanaam su fekkee ne da ngeen a dëdd lii may wax maa ngi leen di fukk ne leen la ma jëflante woon nit yi aad yi ak samud loolu lay jëflante yéen bi mu waxee loolu rek wax ne ot ba daal di jël loxoom taf ko ci gémmiñ yonente bi ne ko noppi loolu bàyyil wax ji yemal foofu nee na yonente bi di wéy ba àgg ca sujjóot ba sujjóot daal ne kon nag loolu rek laa lay laa lay tontu li nga dégg daal ci aay yi loolu rek laa lay tontu xottu ba daal dafay jógee dem ca delluwaat ca penc ba fa waa Makka toog nee na waa penc ba bañ ko séenee dañ ne ko sa waay de kanam gi nga yóbbu woon ak gi nga del si bokkut ndax ba muy ba muy del si daal taayal taayal taayal bi mu ñëwee ne leen waa dëkk bi yaa maachara Quraysh maa ngi leen di dénk ngeen diglu mu baax li ma leen di wax te jëm koo topp itam bu ngeen ko defee de mooy li saafara seen seen li li ngeen jàmbat lépp mooy ni waa ji ngeen bàyyi ko yu mu ne maanaam bàyyi leen Muhammad ak ci mbiram ñaaray maanaam benn li mu li mu li mu coono bi bi bi mënu sonal ni dana dem ba arab yi yi ñu dandale yëg ko bu waa ñoom ñooy xeex ak moom bu waa yéen seen yoon du ci ne wala mu dem ba li muy wax nii nekk dëgg mu moom arab yëpp ak ñëpp topp ko te bàyyi seen teraanga lay doon rek ndax yéen a leen bokkam kon bàyyi leen ko te bàyyi coono bi ngeen ko def loolu daal laa fa jël ñu ne ko yow daal saxaraka wallahi ya abal walid yow daal sa waay ji njawar na la ah mun daa kon de bu la neex ngeen def man daal loolu laa seetlu mi ngoog ci loolu itam ci gàttal rek abu talib mi doon bàyyi bu ndaw yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax na ne ci fan yooyu rek ci la dajale mboolem banu hashim ak banu almuttalib banu almuttalib waxtaan ak ñoom ne leen dama bëgg fekk abu abu taalib xam ngeen ne mag la romb na juróom-ñett fukkaat ak nangam booba xam na ne maanaam bu fi jógee mën nañoo lor yonente bi alayhi salaatu wasalaam te moom ak lee mu faatu ndax juróom-ñett fukk ak nangam te kàttanam demeetul noonu te itam gis na li xaw lépp gis na ni moom jëm nañ ko faat ba tàyyi loolu lépp liñ ci ci kanamam la xewe moo tax mu dajale famille bi nga xam ne ñi jege gën a jege yonente bi alayhi salaam ci bokk mooy banu hashim ak banul muttalib ne leen damaa bëgg daal nu maase ci lenn mooy muhammad mii suñ mbokkal dama bëgg nii ma koy aare yéen ñëpp ngeen maase ci nu ànd doon benn takk maanaam ba kenn du du leen teqaleeg moom ba man koo def dara maanaam bu kenn ñëw teqali leen ak moom comme ni ñu daa def ak Abu Taalib maanaam sedd bëgg ba ngeen seddi ko géew ndax ñu mën koo lox loolu daal bu ngeen ko def moom ñoom waa fawi bi waa waa njaboot bi yëpp maase ànd ak moom ci loolu ba mu des nag ki ñuy wax Abu Lahab moom moo ci àndul ñeenti xaw-xaw yooyu nag bu ngeen seetloo daa toftaloo mooy Hamza ibn Abdul Muttalib tuub na Omar ibn Xataab tuub na ñëw nañ wax ak moom tegal ko boo bëggee nguur ak boo bëggee nangam nangam yëpp mu lànk waa banu Haashim it takkutoo nañ ma def def dayra maanaam famille bi li ñu dajam famille ba ba maanaam takkutoo nañ ci ñooy bokk genn kàddu ci la nag waa Makka ne kat bu fekkee ne fi ne faat nañ Muhammad alayhi salaatu wasalaam sayyidina Muhammad boo waa xeexa fi am te ba Makka gépp dana fees dal ak deret ndax waa dañuy rayante rek loolu dootu xalaat léegi nan def beneen xalaat mooy nan leen maanaam li li li li ñu tuddee jamono ji mooy li ñuy wax embargo mooy bu kenn jaayanteeg ñoom bu kenn jiyante jëndanteeg ñoom bu kenn takk ci ñoom ku bëgg a ku bëgg kuñ bëgg a takk ci yow it nga nga lànk maanaam nga xam ne leen dag dag dog seen digganteeg ñoom ñu ne loolu daal laa gis ne lañ gis ne mooy pexe waa dëkk ba yëpp ànd ci loolu bi loolu amee ñu daal tàmbali ñu ne loolu sax buñ ci yem mooy nan ko bindante fii ba nga xam ne genn jiir du ci nangoo gën ëllëg ku ci génn ñu am daaniñ la teg mooy ñoom ñëpp ñu bindante aw kayit ci ne kat duñ jaayanteeg ñoom duñ toog ak ñoom duñ wax ak ñoom duñ jëflante ak ñoom lenn nga xam ne tey ku bokk ci jullit ñi tey boo ñëwee toog ci dëkk bi ña nga toog ñëpp dañuy jóg dem bàyyi la soo yoree dara bëgg a jënd koo ñëw du la nangoo jaay soo yore dara di ko jaay kenn du jënd boo bëggee soxna boo dee ñu gànt yow it doom yi nga yor kenn du ko takk ci ci dëkk bi maanaam loola maanaam lu ko gën a mett fi ne ci jullit ñi amul te loolu def nañ ko ko def nañ leen ko ñetti at ñu bindante ko taf ko ca Kaaba ga nag nga xam ne mooy fañ gën a fonk bi loolu amee nag ka ko bindoon sax moom yonente bi da ko ñaan yàlla moom moo gën a xam Mansuur ibnu Ikrima wax na ni moo ko bind am ñu ne Nadr ibnul Xaaris waaye moom ba mu bindee këyit woowu bind ba àggal daa mujj loxo bi paralysé nga xam ne mënatu ko yëngal xamul maanaam li ñuy wax paralysé jamono ji rek la loxo bi rek mënatu la jariñoo loxo bi ndax ndax doy waar gi lam lam def loolu itam lu méttee méttee métti la ndax dañoo mujj fa Abu Taalib de kon li ñuy wax maanaam xur wi xuru Abu Taalib ndax xur wu ne daa am kuñ ko doon seetale ca lañ daje ñoom jullit ñi ak ña leen doon jàppale ci banu Haasim fi ne ñooñu donte ay yéefar lañu waaye jàppale gi ñu doon jàppale moo tax ñu ñu boole leen nekk foofa ca xurwa nga xam ne fi ne bu ñetti weer lu mel ne tey weeru rajab ak weeru tabaski ak zil qexda wala weeru weeru tamxarit ñetti asharul xurum yooyu ci la ñu mën a génn ca xurwoowee dem ci njëg yi fay jaar da nga am ci biir ci weer yooyu xam nga ci la jàmm yi am kenn xeex kenn kenn dogaar kenn maanaam ñoom bu ñu rombee waa Màkka kenn leen faat kenn leen def dara ci la ñu mën a dem te commerçant yi ci bitti dëkk ba ñu jënd fa dara waxoon nañ ne àgg nañ ci bu guddee maanaam xale yi dañuy yuuxoondoo ci ci xur bi waa dëkk ba di ko dégg loolu yëpp ci joxu nga xiif bu met kenn amul loo loolu am na ñoo xam ne àggoon nañ ci xobi garab yi lañu lañu lañu la ñuy lekk am na kenn saxaaba yi koo xam ne ne fan yi ñu fa ne ne damaa tegalee guddi yoo xam ne uma dara lu ma lekk dinaa yoo xali sax boo koy def boo kenn la jaay nee na waaye am genn guddi daal ma ma ma ma làmbatu ba dajeeg xeetu maanaam ab der der boo xam ne fa ma deru lu mu doon rek ma ma lumb ko mais mu mu mu solo ma lool ci gémmiñ bi waaye ma fexe ba mu jàll rek ndax boobu ay fan yoo xam ne nekku ma dara teewut nag am na ñenn ci yéefar yi ñoo xam ne loolu métt nañ li noonu am na ku ñuy wax Hakim ibn Hizam nga xam ne soxna Khadija bàjjenam la woon moom daana laqatu léeg-léeg di yóbbu dara di ko jox soxna Xadija moom bu ko dee soxna Xadija tànk ci ñeneen jullit ñeeg ak yonente beeg ñe ñe ñe ci kii benn bi sax Abu Talib Abu Jahlin mas na koo yëg ñëw dogale ko tàmbale nar a xeex ak moom far am keneen ku ñëw ku ñëw abul buxtur yi ñëw maanaam jàpp ci ba Abu Abu Jahlin mënatu koo dogale mu daal daw yóbbu yóbbu la mu doon yóbbu Seydina Abu Talib itam Abu Talib itam wax na ne bu guddee danaa tiit ci yonte bi xam na ne yonte bi moom fi ne amatul sécurité ndax ni mbir mi demewoon moo tax bu guddee dara bàyyi ba ñëpp tëdd mu ñëw fi yonte bi wax ko ne ko génnal maanaam mu bàyyi fa mu tëddoon Seydina Ali tëdd fa mu yóbbu ko beneen bërëb boo xam ne foofu la ko tëdd loolu nga xam ne ku ñëwoon di ko song si ci guddi bi doo ko doo ko doo ko mën a faat loolu nag nekk nañ ca ñetti at ci atum fukkeel ma nag ca weeru muharram wa ca la ca la lii dañ nam daña nag mooy yonente bi ci moom moo njëkk a wax abu taalib bàyyam mu ndaw boobu ne ko loolee ñu bindoon de max gi lekk na lépp ba mu des tur yàlla wa ca nekkoon ma bismika allahumma abu taalib boobu ba mu ba ko yonente waxee loolu maanaam mu tàmbali di ci xalaat fekk ci fan yooyu ki ñu wax Hisaam ibnu Amru mi bokkoon ci banu Amir ibnu Luay moom moo jékki-jékki daal fekk moom daana def bu guddee ba guddi mu làquti dem ca xur wa jox leen dara ñu luñ mën a lekk moo xëy si wa daal ne lii daal wax dëgg yàlla du du lu si war a seetaan ñii suñuy bokk lañ coono bee ñu nekk daal wax dëgg yàlla man dootuma ko seetaan daal di dem ci keneen koo xam ne ku ñu wax Zuhayr ibnu ibnu ibnu Abi Umayya bokk ci waa Maxzum Maxzum yi nga xam ne Atika mii doomi Abdul Muttalib moo doon yaayam moom Zuhair moom dafa ñëw ci moom ne ko Zuhair yow de sa doomi bàjjen ak sa doomi nijaay yaa ngi ca xur wee lekkuñu yow nga nekk fii di lekk di naan ndax loolu neex na ci sa xol Zuhair ne ko wax dëgg yàlla neexuma de ndax loolu du mbokk mu ne ko tey nga jëm ci dara mu ne ko man kese man benn waay kese dama man ci waa dëkk bi dara mu ne ko am nga keneen kay mu ne ko kan mu ne ko man nan ànd Zuhair ne ko loolu baax na waaye wutal keneen mu ñetteel na ñoom ñaar kese dañ cee tuuti aywa amru bnu am amru moom it wala hisaam bnu amru boog laa bëgg a wax hisaam bnu amru demaat ci ki ñuy wax mu mutim bnu uday waxaat ko loolu ne ko yow sa mbokk yeneen sa xurwee di sonn amuñu lu lekk amuñu lu naan nga dëkk ci lekk ak naan ak solu ndax loolu neex na sa xol mu ne ko loolu de wax dëgg yàlla neexu ma xam nga ne lu ci pexe mu ne ko nga jëm dara lu may jëm man kese mu ne ko de du yow kese man ak Zuhayr ibnu abi umaya ñëpp ànd nañ ci ak yow ñun ñett mu ne ko wutal lu ñeenteel ndax ñett daa tuut noonu la ko toppee ba ñëw ci ku ñëw abul buxturi ibnu hisam ba ñëw ci zama ibnul aswad ibnu ibnul mutalib ñoo ñëpp duñ leen dajale la nag lañ taxaw nag ñu lañ daje ñoom juróom juróom benn yooyu yaakaar naa juróom benn nit laa laa wax biñ daje nag ñoom ci lañ ne léegi nan lañ koy defee ñu ne léegi dañu dem ca penc ma rek tëral plan bi ñu ko defee mooy bañ demee ca penc ma keroog Zuhayru dane moom man maay wax maay wax dangeen may bàyyi ma ma mujjee ñëw fekk leen fa bu ñëpp toogee ma wax Zuhayru dem sol yéreem yu jekk ñëw fañ toog ci penc ma mu romb mu romb ko wër kaaba gi juróom-ñaari yoon ñëw ba jàkkaarloog waa kilifa yu mag yi neen waa yéen waa mag yéen a ngi lekk ba suur naan ba mànd sol sol yu jekk seen mbokk nekk ci xur wi lekku ñu naanuñu di faatu ngir xiw ndax loolu dara jar na ko ci àdduna abu jaalin jug ne ko waaw dèjà teg ne ko gis naa ci yàlla ne kayit yi ngeen taf ci kaaba gi naa fi dugg xotti ko loolu daal mënatuma ko mënatuma ko muñ moom moom ñu xëyee abu jaalin ne ko waxoo dëgg de boo ko xottee rek dañ la fat léegi ba mu waxee loolu jamaa mi nga xam ne mi ngi bokkoon ci juróom benn jug ne ko yow moomu yaa waxu dëgg abu jaalin li ngeen def dara waxu ci ba nga koy def yow da nga ko defoon rek waaye kenn àndu ci aywa bi loolu amee abul buxtari jub keneen ci ñoom ne sama wax na dëgg gaa ñi wax na dëgg lii ngeen def dara baaxu ci kër bi nan ko xot bi loolu amee al mutim ibnu uday moom it daal di jug daan ne gaa yi wax na dëgg kër bi daal sëñ bi tegut ci yoon nan ko xot bi loolu amee hisaam ibnu amr moom it jug jaar foofa abu jalin ne lii ngeen lii daal lu ñu tëral la lii ay parents la yoo xam ne bi guddi lañ ko nas fekk boobu Abu Talib dégg na leen ñuy wax loolu mu daal di jógee fa mu nekkoon ñëw ne leen daal sax li gën a gaaw mooy Muhammad alayhi salaatu wasalaam xamal na ma ne ma këyit ba bu ngeen ko xoolee max ci lekk na lépp ba mu def suur yàlla woon ñu ne kay kon loolu mu gën a gaaw nan ko xool su fekkee ne max gi lekk na ko nu nu far bàyyi mbir mi fekkee lekk ko nag nu continuer ci ci dagg gi ñu dagg suñu digg ak ñoom ñu xool këyit ba max gi lekk lépp ba mu def bismika allahumma ji waa dëkk wépp ne kon léegi nañ bàyyi rek boobu jëf leen ndax rafetut te ginnaaw ñu bare bari ànduñ ci ci waa dëkk bi léegi nañ bàyyi di jaayanteeg ñoom di jëndanteeg ñoom di defanteeg ñoom lépp loolu foofu la foofu la foofu la foofu la foofu la doge